waaw man la ah, kii Arona Diaw euh, officier d' état civil du centre principal de l' état civil de hmm. euh, tey ngeen di xamante ni mi ngi jëm ci euh, hmm. li ñuy waajal mooy kii audience foraine. te yaakaar naa ni ku nekk ci département bi jamono yi war ngaa yëg coow loolu parce que président tribunal mi ngi def jot na am ay centre d' civil yu nekk ci département bi yu mu jot a def. te calendrier la boo xam ne bii yaakaar naa ni euh, neuf communes yi nekk kii bi yëpp lay def li département bi léegi nag xam nga loolu mi ngi dafa dafa fekk ni jamono yëpp weesu ñu doon fi benn correspondance su ministre des collectivités territoriales mm-hmm. léegi nag ministre bi euh, bi ñu amaale ci euh, ampliation ministre de l' éducation nationale ak ministère de la justice parce que ministre bi bu bëggee ñu organiser audience foraine da koy jaaree ci ministre de la justice beneen bi audience foraine nag li tax muy jóg mooy nu mu élèves yi nga xam ne bii candidats yi nga xam ne bii seen dañu am problème ak état civil moo tax nag ci loolu bu ñu ko demee ba di ko organiser dañ ciy profité parce que day raar léeg-léeg lu ci bëri da ngay ay at doo gis ñu organiser audience foraine bu ko defee ci ngay ci ngay profité nag ñi nga xam ne ñëpp même bu ñu dul amul dañu am problème ak état civil yooyu ñu profité ci ñooñu tam ñu fexe ba corriger loolu. déjà foo nga dellu suñu tuuti ci euh, njëriñu état civil ci doomu aadama bi bala ñuy. xam nga ci tënk bu ndaw ci mandat bi bu ndaw xam nga doomu aadama ganeem àdduna ba baa muy génn àdduna dañ ko war a mandargaal xam nga nit ka nga xam ne bii du judd na ba génn àdduna amul benn at état civil dafa mel ni koo xam ne mosul a àdduna. léegi lépp étape yëpp ci dund doomu aadama bi dañ koy mandargal ci état civil bu juddoo. dañ koy enregistré wutal ko lu ñuy wax acte état civil bulletin de naissance déclaré ko bulletin de naissance extrait de naissance ainsi de suite bu demee ba war a toll ci war a jàng tamit acte euh, moom lay booleeg inscription bi ci école wala daara wala yu mënti domaine bu tolloo ci par exemple tey màgg ba war a jël soxna euh, tamit acte boobu dafay am njariñ ci jëlum soxna boobu bu bu demee ba war a am carte dentité tamit parce que moom moom waroon a jiitu foog da koy am bu demee tam ba war a am passeport war a tukki noonu doomu aadama bu demee ba war a jël soxna tamit la même chose dafa war a am acte état civil yooyu bu demee ba génn àdduna sax lool dañ koy mandargaal ci état civil léegi nag euh, nu acte bi maanaam comme ni ma waxoon lépp loo xam ne ba nga change sa état civil rek dañ ko war a kii ba tey jël nga soxna normalement buñ ko enregistré à l'état civil defal la constatation amna partie bu wax ci registre mention marginale mention boobu dañ koy renseigner wane ni kat may nañ ko soxna bis tay def ci option ba def lépp devant témoin waaw. tey euh, bu fekkente ne nit ki amul état civil boobu kon certainement audience foraine bi dafa ñëw pour accompagner loolu. pour accompagner loolu parce que déjà xam nga déjà dafa am loo xam ne bii ci responsabilité yi dafa responsabilité partagée parce que. officier d'état civil bi dafa am pour euh, ñi muy liggéeyandal ku njëkkee ci santé maanaam ku mel ni médecin bi wala chef de poste de santé bi fi nekk infirmier chef de poste wala yu demee noonu ñooñu dañu am registre maternité fa la ñëpp di juddoo euh, tey am na registre bu fa nekk boo xam ne bii ku fa juddu rek dañuy enregistré délégué de quartier yi tamit dañuy am la ñu am daan li ñu daan tuddee cahier de village mais léegi comme commune Ross Béthio ni mu nekkee nii village amatu fi ay quartier ñoo fi dafa am lu ñuy wax cahier de quartier kooku office d'état civil moo la ko jox ku judd ñu enregistré ku ñu mayee ñu enregistré ku génn àdduna ñu enregistré te buñ ko enregistré dañ ko war a indi à l'état civil bu ko defee nag ñu di ko saytu topp est-ce que ñii déclaré nañ est-ce que déclaré wu ñoo ñu fexe ba ñooñu déclaré ba ñu am bu demee nag ba loolu weesu tamit ñooñu dañ leen di recensé fexe ñooñu nga xam ne amuñu at ñu fexe ñu am kii état civil te léegi audience foraine bi c'est-à-dire la mu lay permettre mooy dafay mel ni tribunal bi moo déplacé wu vers les populations pour yombalal leen loolu tax audience foraine am solo parce que bu dul loolu ki bëgg acte état civil yooyu te amu ko woon bu ñëwee dañ koy délivré li ñuy wax non inscription te coono bi mooy que ni moom dana ci déplacé wu dem audience yóbbu kama koy kañ ko kañ ñuy wutal danañ ko yóbbu ay parents dañuy déplacé wu témoin déplacé te loolu euh, day laaj yenn kii yoo xam ne te bu ñu amul yenn moyen day xaw def day wax moo tax audience foraine moom bu ñëwee dañ ci war a profité au maximum pour que ñi nga xam ne bii am ñëwoon ñu mën leen ko defar parce que du ñuy am lu bëri. état civil comme ni nga ko waxee euh, yamul rek ci wàllu crédit bi wax nga ko ay certificat de décès ñi ngi ci biir ay certificat de mariage ñi ngi ci biir ndax audience foraine dafa yóbbaale ensemble boobu. lépp la yóbbaale parce que parce que ni ñuy délivrer certificat de non inscription naissance moom la ñuy délivrer certificat de non inscription mariage certificat de non inscription décès pour que acte yi nga amul woon wala nit ki génn àdduna déclaré wuñ ko ñu defal ko jugement. d'autres jugements parce que déjà nit mën na génn àdduna tey njabootam am na loo xam ne bi ca ba muy dund doon na yëngu loo xam ne bii par exemple seen héritage du ñu war a fayu wala yu demee noonu bu fekkee ni par exemple dañ ko war a fayu par exemple foog acte boobu ànd ci certificat de décès boobu ànd ci te léegi bu ko amul woon ñu war a jugement de dese mariage tamit la même chose nit ki génn na àdduna ay veuve am am na loo xam ne war nañ koo fayu bu amul woon certificat de mariage foog ñu wutal leen jugement de mariage pour que loolu tam ñu war ko fay ak yeneen ak yeneen bi nga xam ne bii moom la acte état civil loolu am. Euh, tey euh, lu jëm ci wàllu audience foraine boobu comme ni ko waxee yeneen koy amal euh, ci le 7 avril 2021. tey ndax mën nañu jàpp ne loolu wàllu lancement bi kese la. wala dafa amaat yeneen comportement yu ci am maanaam da ngeen koy def d'une manière séquentielle. non xam nga fi mu toll nii première étape bi mooy fi mu toll nii sensibiliser population bi wane ni kat accordé nañu audience foraine boobu léegi nag comme ndaw ñi nga xam ni ñooy jàng war a dem examen ñoo tax mu jóg da koy jaare ci président comme par président commission éducation bi nga xam ne bii moo nekk ci mairie bi di lëkkaloo ak ñooñu di liggéey ñoom comme ça moom mu mën a jàllale information boog loolu mais terewul tamit en tant qu'officier d'état civil ñi nga xam ne bii ñi nga war a informer ñëpp da nga leen par xëy na codec bi wala leneen ak leneen ak population bi surtout parce que boo jàllalee ci président commission éducation rek yow mel na ni am na benn pas boo li ci des moom dana ko mottali bu ko defee nag yow sa sensibilisation fu muy gën a accentué mooy ci population bi pour ñu yëg ni urgence foraine am na ñu war a mën a ñëw à la ñu teg leen ci yoon ba disposition yi war a jël yëpp ñu jël ko boobaa bis ba nu nga xam ne di fi nekk di def benn yenn réglage dañuy woo nit ñi rek. par ordre d'arrivée nag lañ koy kiiwee parce que am na benn registre bu ñu bu ñu bu ñu ubbi mais li njëkk balaa ñuy laal kenn mu leer nañ ci doomu aadama yi euh, yi ñoo tax ota euh, euh, kii jóg audience foraine am ñooñ la ñuy jël ba pare bu ñu leen jëlee ba pare nag. doogu jël ñi nga xam ne bii tey majeur la ñu amuñu at d'état civil wala yu demee noonu. Eh, wax nga ko euh, ciblage numéro un bi moom mooy élèves yi ndax am na bunt bu ngeen bàyyi ñi nga xamante ne ñu ngi ci daara yi euh, daara mbett yi parce que bari na xamante ne euh, ku ne xëy na toppatoo bi ñoo mel ci ñoom du war ci ñoom comme ni ko ndax bàyyi ngeen ñooñu. waaw mais boo tegee ñu ne njàng mi njàngale bi du du école école école dafa saabu dafa di dafa làmbaale lépp. boo jaalee ci président commission éducation moom xam na ñi muy liggéeyal day liggéey ak daara yi day liggéey ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kooku mooy moo lay wax ni bàyyiwul kenn képp kuy jàng rek bàyyiwu la parce que am na ci ci ndaw ñi xale yoo xam ne bii balaa ñoo dem ci école nasaraan bi dañuy jëkk jaar ci daara ba ba ñu tàggal leen ci ñuy doogo ubbeeku dem ci école bi am na ñoo xam ne ci préscolaire bi nekk am na ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne bi tey boo nee commission éducation rek moom fi mu toll nii bañ na ko bàyyiwul kenn ñëpp day ratisser large daara yeeg ñëpp parce que ni mu te xoola par exemple programme bi état indi ci couva couverture maladie universelle xam nga ñu ngi enrôlé euh, ñu ngi wax euh, nu mu tuddati euh, semi élève semi élève boobu bàyyiwul kenn bàyyil ku nekk ci daara ji bàyyil nasaraan bi bàyyil ku nekk ci arabe beeg franco arabe ak leneen ak leneen. message bi ngay déglu waaw mooy que ni rek nit ñi.

soit papa ji amul kayitu juddu wala yaay ji amul kayitu juddu man nag dama ci profité corrigé waa loolu boo indee ñu defal la non inscription sa doom automatiquement dañ lay defal non inscription yooyu pour nga mën a bokk ci audience bi. parce que am nañ ci cas yu bëree bëri bëri ñoo xam ne bi parent bi ci boppam amul kii léegi nag bu fekkee ni par les parents sont décédés te bàyyiwuñu fi benn acte état civil mais dañuy préciser ci non inscription r de père wala orphelin de mère wala orphelin de père et mère yooyu

ay émission tey xëy na maa ngi ci Waal Digital News defoon naa sunu FM. dinaa demaat ci yeneen kii yëpp plateforme yëpp pour mën a informer gën a kii nii nii pour ñu. parce que disposition pratique yëpp ñu koy jël pour que vraiment ñu organiser une journée boo xam ne bii lam ciy mobiliser ci doomu aadama yëpp ñëpp mën a jàll. beneen précision présision bi mu ci def ci parce que ci contexte bi ñu nekk nii ci Covid bi président tribunal dafa ni xale boo xam ni moins de 15 ans la am xale bi di ñëw parent bi rek a indi. wala directeur d'école bi wala ku mënti doon mën na indi euh, nu mu tudd naan inscription bi rek taxaw bu xoolee moins de 15 ans après ñu defal ko kii bi acte bi. di ci lancé waale euh, di ñaaxaat encore di jàllalewaat ci président commission éducation ni ko euh, audience foraine dafa am lu bëri lu mu laaj foog nga mobiliser benn personnel bi. luñ ci mën a jàpp rek ñu jàpp parce que transcription yi dañ lay wax tribunal ni amuñu personnel bu doy kon yooyu yëpp ñun ñoo koy def bu ko defee ñu mobiliser comme niñ ko daan defee rek.